ñu ngi leen ñaan nga nga abonné wala ngaa seetaan vidéo bi te bës cloche bi dugale vidéo nga gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sujuduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ay ñooñam ak i saxaabaam dellu si nin ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq seen xarit jàppoon nañ ne Yassir ku bëri woon jàmm la ndax këram kenn daawul mën a nelaw ndax jàmmam ju ëpp ñu xëy benn bis rek mu mel ni dañu ko sotti ndox mu sedd guy mu ne tekk waxatu kenn waxatul ak kenn loolu yéemoon soxnaam sa di yëpp mu ko laajee mu ne ko dama gént gént gu ma jaaxal gént ga nag benn xur la bu nga xam ne xuru safara la safara wa ca nekk mu ngay jër-jëri gis na fa ñaari montagne yu liis montagne nga xam ne nga gis ba mu sampe waaye boo téenee di xool guddaay ba sa bët day xool ba fa gisam yem waaye du gis mukk catu montagne ba ndax montagne bu gudd te rëy xur ak diggante ñaari montagne yooyu safara su tàng moo fa nekk loolu tiitloo na yaasir te gis na ci biir gent ga soxnaam soosu di ci benn jardin bu naat jardin bu nga xam ne dafa fa nekk ci xewal ak kër yu rafet château ya luxe ba fa nekk jéggi na dayoo mu gis itam doomam jooju di Amar mu ngi jàpp ci loxoom di ko xëcc naan ko bàyyi moytul safara si loolu jaaxaloon ko bu commencé di ko nettali soxna si far soxna si xëm ndax na mu commencé mbir ma di ko ko nettali dafa ñàng mu ni ko kon dama la koy misaal ndax gént gi dëgg-dëgg su ma la ko nettalee ragal naa ni sa bakkan du ko fekkee mu misaal ko ko ci ñaari montagne yooyu safara wa nekk seen diggante su ma ko demal ci pencu màkk mi ngi màkka su ko defee nga waxtaan ak say mbokk amaana danañ la ko mën a firil wala buñ ko firiwulu itam nga wax ko nettali ko dana génne tiit gi ci sa xol ndax gént ki jàpp na la fu ne nii nemmeeku naa ak ñàkk a ñeme ci yow fu ne nii da ragal da tiit Yaasir daal di jóg nag daal di jëm ca pencu màkk moomu moo tax ñu ne aqbala yaasir yasaa ila al masjid xata ida balaga naadi bani maxzuum alqa taxiyata wa jalas yaasir ñëw na ci pencu màkk fekk na fa ay aliyem te moo di famille bani maxzuum bu mu ñëwee nuyu leen gis na seen kanam yëpp belliwul bégguñu dara gis na itam ne suufeel nañu seeni baat bi ñu koy fay ci nuyoo daanaka dañu ko faye bakkan wante moom Yaasir comme boroom fayda la woon mu daldi toog rek moom itam ne ah giru quraish de dañuy jaay fayda waye danañu ñu xamni fi leen may fekk comme tok nañu japp seen ñambir ñambur man tam dana tok japp sama ñambur dadi tok japp ñamburam wante kàccoor bu bon ñuy wax abu jëhlin تترم دق دق دي عمرو بن هشام موكا لاج نيكو ما اخرك اليوم عنا يا ياسر مونيكو يو ياسر لن متختين تختي nga يو ñu yow ya dan jëk ci barab bi lu tax wax gu tege ci kaf ni ko qad kuntu fi xaajatin ila inni ya abal xakam loolu waxinu arab la mu ne ko dama amoon aajo aajo boobu moo tax ma yéex a ñëw kuntu fi xaajatin ila inni ya abal xakam amr ibnul hisham te moo di abu jahlin abu jahlin ñu ngi koy wooyee bàyyu ndax ñi réer ñëpp abu jahlin moo leen gën a réer tudde neen ko abal xakam ndax bañ dee fexeel yonent bi moo joxe woon pexe mu jub ma cheytaan tuddee ko abal xakam waaye turam dëgg-dëgg moo di amru bnul hisham looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci njëlbeenug lislaam gisoon na ne ñaar am nañu pasteef lool ci péncu Makka ca la koy defar ak la koy yàq moo di Omar ibnul Xataab ak Amr ibnul moo taxoon yonent bi ñaanoon yàlla ne ko ñaari Omar yooyu nañ ci jël kenn dëgëralee ko sa lislaam bile ñaan nga nag dal Omar ibnul Xataab Amr ibnul di Abu Jahlin bi muy wax ak Yaasir boobu يكتم الغيظ في نفسه ممكن بمر متر كدنم نيكو أجل كنت في حاجة إليك لأسألك عن شيء عمي عن شيء عمي علي من أمرك نيكو خمنا نيكي آجونا نيكون كم ندفع أملو من لنت كي يو لولو تخملاج ياسير نيكو وما ذاك لولو نغا ماي لاج لان عمرو بن الهشام نيكو ذاك اني لم ارك قط تقرب الى الهتنا ولم اسمعك قط تذكر بخ تذكرها بخير ابو جهل نيكو ياسير لما لم تكسين بير مودي نيو بيغا تيغي ستانك تي بينتو مك njëkk ak ñun ba léegi def na ay ati ati at waaye mosuma gis nga nangoo jaamu suñu yàlla yi wala nga leen di teral wala boog ngay wax ci ñoom lu baax yaasir daal di ree ne ko fa fahal samictani qattu adkuru alihatakum bisu wa bissu وهل رأيتني قط min al amri ma يؤذيها mu ne ko ndax mas nga dégg seen yàlla yii ma taxaw ci penc di leen xas wala may wax ci ñoom lu ñaaw ndax loolu mas nga koo dégg ci sa nopp bopp Abu Jahlin ne tekk mu ne ko itam ndax mas nga gis ma yëkkati ak lor jëme ko ci seen yàlla yi Abu Jahlin ne tekk ba jikki Abu Jahlin amatul lu mu wax mu ne ko kon ma ngi lay yegal ne yàlla yile bokkul ak ñom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa Quraysh yasir ne ko loolu rek moo tax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gi di añ añi ha ah, ma ngi lay yegal ne man kat seen dëkkandoo la dama ñëw ci dëkk bi pour seq ak yéen jàmm waaye ñëwuma fi pour leneen abu jahlin ni ko mbir mi demewul noonu dafa am lu xew ci dëkk bi dafa am diine ju bees ju fi ñëw diine jooju nag dafa am ku ko yëngal am nañu ko gëm am nañu ko gëmu léegi nag man dama bëgg a xam ñi ànd ak ñun weddi diine jooju ak ña gëm diine ja di ko dëgër ndax jot na ci pencu màkk kenn ku ne leeral sa position kenn ku nekk itam li nekk ci sa dënn ñu xam ndax ñun kat yéen jàmbur yi fi ñëw allié ak ñun da ñoo bëgg a fonto dootuñu fi jéggalati kenn nag ginnaaw si ginnaaw si tey yàgg ngeen a def ay musiba ñu leen di jéggal waaye nag mën nañ leen a jéggal lu ne ba mu des gëm diini lislaam waaw yàlla nee na wala tajidanna ashadda annaasi adawatan lilladina amanu al yahud walladina ashraku yàlla nee li gën a bañ jullit ñi ba amuñu benn tolérance ci ñoom moo di yahud yi te mooy juif yi ak mushrikuun yi animist yi ñooñu duñu mëgg duñu mën a bëgg jullit mukk yàlla nag nee ñi gën a jege nag cofeel ci jullit ñi moo di nasaraan yi chrétien yi ñooñu seen cofeel ci jullit ñi jege na lool waaye ab yahud akub animiste ate ñooñu jullit rek la ñu bañ abu jëxlin nag mushrik la woon loola taxoon mu ne mën nañu toléré tooñ gone ci màkk jàmbur def ko ba mu des gëm diine Muhammad yaasir ne ko mu ne ko te moom yaasir ne ko amsik alayka nafsak abal xakam فإنك لم تر مني ولم ير قومك مني سوءا منذ حلفت عمك أبا حذيفة على أن أكون سلما لمن سالمتم وحربا لمن حاربتم وإني لأسمع الآن منك حديثا لم أسمع مثل مثله منذ آويت إلى حرمكم هذا ياسر من فايدام daaw نبكن nëbb dama bëgg nga jàpp nga téye sa bopp yow abal xakam ndax danga ma xaw a niru mag mu yara diko te man ngi lay yëgal ni depuis ma teg fi sama tànk ci xaramu màkk soo dégg walla nga gis lu bon lu ma fi def gisuloo ko ci man say mbokk gisuñu ko ci man depuis ma teg fi sama tànk wëllëranteeg sa bàyyi tax boobu ñuy wax Aba Xudayfa man jàmm mu ma indi ci dëkk bi loolu laa siñanteeg yéen ku seq ak yéen jàmm ma seq ak moom jàmm ku xeex ak yéen ma xeex ak yéen kon nag wax bii nga wax jaaxal na ma Amr ibn Hisham daal di ree ba jaaxaan te moo di Abu Jahlin ree goo xam ni mer moo ko lal mer mu tar moo ko lal mu ne ko ah kom yow ku seq ak ñun jàmm nga séq ak moom jàmm ku seq ak ñun ay nga séq ak moom ay ndax loolu nga sigganteeg ñun ba tax nga ñëw nekk suñu allié kon nag tey sa xeex na ko commencé ci sa digganteeg sa doom boobu ñuy wax Ammar ndax sa doom boobu ñuy wax Amar xëy na bis ni ki tey di noon bu mat sëkk ci say allié te moo di dégg nga famille Maxsuum bi Aba Xudayfa bokk mu ne ko kon fa anta xarbun ala bnika Amar idan mundul yow Yaasir ne ko abin abal xakam leeralal sa wax bi ndax fa inni la afhamu anka mundu al-yawm shay'a mu ne ko dégguma sa wax bi lan moo waral nga ne ma xeex dana dox sama digganteeg sama doom ji ma jur mu di amaar abu jalin ne ko alam taalam an ibnaka qad saba xanaa xamuloo ne sa doom jooju jeng na jeng na léegi gëmatul suñu xërëm yi ndax amana bi muhammadin wa ashaabi moom kat léegi muhammad la gëm ak ay saxaabaam foofu nag yaasir dafa daanu xëm làmmiñ wa daal di fasu mu commencé sotteeku ñaq foofu nag mbooloo ma toogoon ca pénc ma buqi neen seen bët ngir jaaxle ci mbir mi nga xam ne dox na ci diggante abu jahlin ak yaasir ba waxtaan woowu waral yaasir daal di xëm mënatu la wax ñoom ñëpp ñu jaaxle abu jahlin jóg nara ubbi gémmiñam wax bàyyi taxam boobu ñuy wax walid ibnu mughira ni ko yépp na axi ñu ne ko téel nag sa gémmiñ doy na yow sama doomu bopp mu ne ko amal yërmande ci màggat mi le ndax mag la te liñ ko wax touché na ko ba tax mu xam yow nag ku la bàyyee kii nga rey ko te defu la dara tooñu la خنا جسو لي دال وليس عليه من جرائي من جرائر ابنه شيء فقد جاوز ابنه سن العشر سن الأربعين منكو دومم جي جن دوغتي دين الإسلام جم محمد responsabilité بوبم لا نخ doom joo xam ne am na ñeen fukki at kooku bàyyam yi li fatu ko kon nag abu jahlin yaa nekkul ci dëgg te ku ne xam na ni Walid ibn Mughira mi ci punkali yéeféer yi gën a bon ci la bokk moom la yàlla xas ci nun wal qalam waaye moom de mooy dal ci kaw abal xakam di abu jahlin di ko wan ne ko nga def yaasir jaaduwul foofu nag sang ya toogoon ca barab ba bokk ci fami maxzum ñoom itam ngi yedd abu jëlin di wax kem la walid ibnu mughira doon wax naan ko bàyyil jàmbur kii deful dara te itam amel nga ko àq màgget mii nga topp di ko tiiñal ba mu daanu xëm xam nga ne tooñ nga ko bi yaasir demee ba sagoom dellu nit ñe ne noppi nee na ci la jóg moom Yaasir daal di jàkkaarloog Abu Jahlin ne ko bi sama laqita bihi xalifak ya abal xakam inni lam ara ams walam arahu alyawm walam aarif ma kaana min amrihi mundu faaraqtahu bi Yaasir demee ba sagoom dellu si nit ñe ne tekk noppi nee na ca la jóg moom yaasir daal di jàkkaarloog abu jahlin ne ko bisa ma laqita bihi xalifak ya abal xakam inni lam ara ammaaran ams ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته منذ فارقته وإنك لتضع العنف في غير موضعه وتلوم غير ملوم منيكو يو أبا جهل يا صخر كي دخن ديم بول رنتيك يو دكاليك يو من دخل دخن ديم لا تي دك بي نيكو في kat maa ngi lay yëgal ni sama doom jooju tax nga sànni ma tuuma foog ne dama yem ak moom dañu gëm Muhammad man Muhammad xaw moon ne sax am na diini ju muy woote ba weddi seen yàlla te sama doom a ngi nii ñaari fan gisuma ko xaw ma ci li mu nekk kon soo ma dee wax wax ju bon ji dafa fekk ne sa xol bu bon rek moo tax lolo tax nga may soxre di ma wax kàddu yi ñaaw yi yaa ngi may yedd te waru waruloo may yedd mu ne ko fa halla anufta bil arqam ibni abil arqam wa huwa misluka sayidun min saadaati maxzuum wa huwa qad sabaa qabla an yasbaa ammaar in kaana ammaar qad sabaa wa huwa qad jacala daarahu naadiyan li muhammadin yanqaa fiiha ashaabahu wa yanshuru minha daawatahu ويذكر فيها آلهتكم بما تكرهون ولكنك خفت الأرقم لأن بني أبيه يقومون دونه إن أردته بمكروه وأما حليف عمك أبي حذيفة فليس هناك منكو فلو قد كان أبو حذيفة حيا لفكرت وقدرت قبل أن تلقاني هذا اللقاء قال ذلك ونهض متثاقلا حزينا منكسر النفس فمضى إلى داره وترك بني مخزوم يتلاومون ياسر بدتي مغي وقتانك أبو جهل نكو يانغي ماي يد يانغ وخلوما نقري باتخ ما تاقلك وكسما ساقو واي mooma ko am na ci kum gën jekk mu ni ko xanaa doo yedd arqam ibnu abi arqam ndax moom sang la comme yow yéen a bokk benn famille te moom arqam moomu jeng na gëmul seen xërëm yi jeng na ni sama doom ja jengee bi di te yemul ci jàng gi rekk wante dafa ubbi këram jël kër ga mu def ko siège social pour jullit ñi mu jox ko yonent bi fa la ñuy daje di waxtaane seen mbiru diine fa la ñuy tasaaree lislaam bi fa la ñuy yekkee seen yàlla yi lu toll ni xeme kon kay yow bu fekkee ak njàmbaar mu ngi ci yow jógal nga bocc sa jaas yi dem ca al arqam ibn abil arkam muy sang mu dëkk ci dëkk nga jëflante kooku moom ba mu saf waaye man mii doxandéem aw ma fi nijaay aw ma fi bàyyi aw ma fi kenn yéen laa fi am su ngeen mën a ree teg coono bi te gisu ko ci man xanaa ci sama doom loolu yabel la kon abu jahlin sa njàmbaar bu dee ni dëgg la dëggu na demal ci arqam ibn abi arqam mu ni ko nag man mii nga xam ne sa baay bu ndaw bi ñuy wax abu xudayfa moo ma bàyyi ci dëkk bi man jotewumaak ak yow dara ndax gisewuma ak muhammad gisewuma ak sama doom te maa lay yëgal ne bu sa baay doon dund te moo di abu xudayfa ñàkk teggin gii nga ma def ci pencum euh, makka doo ma ko def bu mukk foofu nag la daal di jóge gis gann nag ndax naqar daal di wéy nag daal di jëm ca këram bàyyi leen ca pénc ba ñuy yeddante ndax dafa leen mag fop wax dëgg yàlla ba pare ñu ñàkkee ko teggin ci biir péncu Màkka te ka ci jiitu di Abu Jahl ñu ni bi mu ñëwee ba jub këram moom Yaasir nee soxnam su teddu soosu di Sumayya gatandu na ko ak muuñ gubelli. ko ak kanam gu belli nee lu jitu mu koy jege sax soxna ci tëb na la ngàmmu neena di wax ak mom ci kaddu yu jek kaddu yo xamanteni mbeugel ak orma moko lal mu ngi nan ko abshir يا ياسر فقد جاءنا عمار بخير الدنيا والآخرة هنيكو يوسم برم كر بيغل نخصد دوم جيدي عمار انجل ننو لو مانام انجل ننو يو أدونا اك الآخرة ياسر وقتك جاخلي نيكو الآخرة ما الآخرة منيكو الآخرة لن مودي الآخرة بعد بوبو دي بعد بوبيس لكي من دنيا دي خمناكو نخ مودي أدونا بينيو نيك واي آخرة دي بعد بمونجي سوغ آه، رد چي سمي نوب منيكو لن مودي آخرة ماذا تقولين لوي وخيو سمية إني لأعيش عيشة منكرة, منكرة منذ اليوم تروعني احلام الليل ولا افهم ما يقال لي اثناء النهار منكم من كسم الدندو دا ملني بني سيبل ناخ بوما تدي اي جنت دي ما بيتي جيتم سما دي ويتليكو سما نيت ني ماي واخ كاد يوما اك يوما نقاري فوفا نكي بوبا عمار منتي كرغ عمار دادي نتل نكو باي أبشر يا أبتي وقد جئتك بخير الدنيا والآخرة نكو بيغل يو سما باي نخ اندلنا لا يو أدنا الآخرة ياسر نكو أمفسح أنت عما تريد ألم أحدث أنك قد صبأت ويلك ماذا جنيت على أبويك قال عمار وهو يتضاحك رفيقا بأبيه بل قل ماذا جنيت لأبيك سوني جنى لي أجنى على دفوتي باي بينكو يا عمار لما تجي weddi xërëm yi da nga jëng gëm diini lislaam woona sa toskare ban musiba nga indil sa ñaari wayjur Amar daal di reewu orma ak cofeel ci baayam ne ko bàyyi wax ma kay ne maada janayta li ab li abawayk ana ban yiw nga wattal sa ñaari waajur wante man indi lu leen ay faqad janaytu lakuma xayra dunya wal axira man wattal naa leen fur wi àdduna ju yiw ak alaxira ju yiw ah am nañu wax ak yow nag ne man jëng na waaye maa ngi lay yëgal ni inni lam asbu wa innama aslamtu lillahi alladi xalaqa alsamawati wal arda walshams walqamara wannujum wa arsala ilayna muhammadan يهدينا سبلنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الجهالة والضلالة والغي إلى الحكمة والهدى والرشد ويبشر من آمن واتقى بأن له رضا الله عنه ما عاش وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يموت وينذر من كذب وعصى بأن عليه لعنة الله حيا وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت ياسر نيكو منام عمار amaar نيلا bàyyi ba ñi la wax ne dama jeng dama jébbalu dama jébbalu ci buur bi nga xam ni mu bind juróom-ñaari asamaan bind suuf bind jant bi bind weer wi bind nu bind biddiw yi buur bi nga xam ni moo yebal ci ñun sayyiduna Muhammad mu ñuy orienté di ñu teg ci siraatal mustaqim mu génnee ñu ci lëndëm lëndëmi tooñ lëndëm lëndëmi bokkaale lëndëm lëndëmi mooy jëme ñu ci leeru gëm yàlla ak topp ko génne ñu ci réer akuk cànkute akuk mbewte ak reewande jëme ñu ci xam-xam bu baax bu lay jëriñ ci àdduna di la jëriñ àllaaxira jëme ñu ci njub jëme ñu ci yar ak teggin yonent boobu di bégal képp ku gëm yàlla képp koo xam ne mu ngay moytandiku li yàlla tere di jëfe li yàlla digle mu ngi bégal moom yonent boobu nit kooku ci ne dana am ngërëmal yàlla fii mu ngi dund fii ci kaw suuf bu génnee àdduna itam yàlla dugal ko aljanna mu di këru taraangam te itam ëllëg yomal xiyaam dana am ngërëmal yàlla dana am ca yool yu rëy yonent boobu di waar képp ko di ji la ma fi yàlla doon xaarloo looloo tax ma jënde yaman xuruma ka wile bi mu waxee ak Amar ba noppi nag ci la geestu nag wëlbati ko ca soxna sa di Sumayya bi mu ñëwee ba ci Sumayya mu daldi di raay bopp Sumayya ca loxoom bu tedd ba daldi koy wax ne ko xubbuka huwa ko xubbuki huwa alladi daani ila intidaari hadihi saa mu ne ko soxna su tedd ji sama mbëggeel ci yow sama mbëggeel ci yow bi nga dee jàng ma ñëw ci kër Abu Xudayfa gis la bëgg la ba samay mbokk tuumaal ma ne ma jong mujj ñuul ji moo la bàyyi ci dëkk bi ndeke mbëggeel googu waxtu wi la ma fi doon xaarloo maa ngi lay sant di la gërëm ndax itam sa mbëggeel bokk na ci li ma téye ci dëkk bi ba ma dajeeg jëmm ju tedd ji di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu waxee loolu Sumayya daal di delluwaat moom Yaasir ñettaat loo sam ci suuf daal di fomp ay rongañam dégg nga wante lu mu fomp-fomp romb rongañam gis na nu ne rongañ yu bari ya rogalaat na ci sikkim ba tabarkalla nee na ba mel ni ay per yu weex tàll ci sikkimam bu tabarkalla weex bu rafet ba nee na mu daal di wax Amar ni ko yow sama doom kañ lañuy ànd nag ci jëmm ju tedd jooju di muhammad ngir ma mën a dégg li nasmaa minhu kalimat al xaq kañ nga ñu yóbb nag ci sëriñ bu baax boobu kañ nga ñuy yóbbu ci yonent bu tedd boobu ba ñu mën a dégg ci moom baatu dëgg te moo di kàddu dëgg ga te moo di kàddu yàlla gi te moo di alquran ju tedd ci Amar ne lu baax bàyyi kenn du ko yeexe ne ko halluma al aana in chituma nanu dem léegi su fekkente ni amuleen ngant nee na ba ngoon nga jotee kàccoor bu bon boobu di abu jahlin di amru bnul hisham nee na ndeke moom jóg na mu pexe bu bon ca dajale pencu màkk fas yéene waxtaan ak ñoom ci jaam yi nga xamante ni dugg nañ ci diine ji ak doxandeem yi nga xam ne dugg nañ ci diine ji loolu yëngaloon na pencu màkk waaye abu jahlin moo taxaw pour fas yéene dékku mbir yooyu xeex ak jaam yi xeex ak doxandeem yi teg leen xeetu mbugal yu bon yoo xamante ni incha allahu ci ajjuma ji di ñëw ci leen ci fas yéene dugg kon mbokk yi dafa mel ni mu ngi def si nañu waxtu wi jeex na wante incha allahu ci ajjuma ji di ñëw ñu continuer rek histoire bi di histoire Yaasir ak doomam ji Amar tabarakallah ak soxnaam soosu di Sumayya ak kàccoor bu bon boobu di Abu Jahlin ak Umayya ibnu Xalaf ak Abu Sufyaan ak Walid ibnu Mughira ak ñi mel ni ñoom